asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa àdduna di dellu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tey ñaan yàlla def jàmm ci àdduna bépp di remercier ñëpp ñi nga xam te ni ñu ngi stop suñuy video di kontaan ci yéen parce que gis nañ seeni réaction ñu ngi jot message yëpp ak appel yëpp donc ñu ngi kontaan bu baax a baax ci yéen di leen rappeler encore une fois que numéro bii ngeen di gis mooy sunu numéro service commercial mais ñu bëri dañu yaakaar ni numéro waa Marodi TV la wala numéro ñiy joué série maîtresse d'un homme marié waxoon nañ ko mais dañ koy leeralaat numéro bi numéro waa Lu Xew TV la numéro bi nag li tax ñu bàyyi ko fi mooy pour ñi nga xam te ne dañu bëgg publicité wala ñu am lu ñu bëgg a maanaam ñi nga xam te ne dañuy yëngatu ci wàllum njaay wala lu mu mënti doon bëgg mu am visibilité bëgg ko jàllale. pour ñooñu bu ñu soxlaa ñu contacter ñu ci ñu waxtaan ak ñoom wala ñi nga xamante ne dañu am histoire bu ñu dund bëggoon ko raconter bëgg ko dugal YouTube wala soit ñu bëgg ñun suñu xalaat bu ñu contacter waxtaan ak ñun dinañ leen ci wax suñu xalaat bu ko bëggee dugal YouTube également dinañ leen ko dugalal mais du numéro waa Marodi TV du numéro ñi joué série maîtresse d'un homme marié donc ñun dañ ciy def suñuy analyse di ci jaarale ay message pour jéem ci yeete analyse yi ñuy def nag suñu ay idée personnel la yoo xamante ne suñu xalaatu bopp la ñu xool daal gis ni xëy na buñ ko jàllalee dina am ñoo xamante ne dina leen mën a yee ci benn côté bi loolu moo ko waral mais du numéro waa Marodi TV. donc tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo suñu benn yaay booy moo ko def li mu gis ci série bi lay wax donc ñu bàyyi leen ngeen déglu li nga xamante ne moom mooy gis-gisam ci série bi ñu dikkaat continuer waxtaan wi. salaamaaleykum góor gi na def waaye maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar ci bésu àjjuma bi di la sant di la sant itam boole ci disi di gërëm émission bi ngay def vraiment neex na ma ba nga xam ne ku seetaan euh, euh, show bi ku seetaan film bi vraiment bu sa yaram dul daw dina daw ndax Jalika nu mu dundoo exactement comme nu ko ndaw si waxee itam ni ko expliqué presque fi mu wutee mooy euh, jëkkër gi duy mandi ñëw jàpp ko dóor bu ko laajee dara même bu ko joxlee moom dafa dem ba ci yegg sax moom ndaw si xam boppam dootu ko laaj mu jóg jóg ci boppam wut liggéey di toppatoo boppam di di def ci kër gi lu mu am def ca Jalika nag moom c'est le contraire moo tam moo tam moo Jalika foofu ñoo yem parce que Jalika dafa dem finalement du laaj jëkkër gi dara mooy joxe dépense mooy fay luyaas mooy euh, yo fay école xale bi jënd couche jënd yëpp te du teewul mu ngi def nu mu lu mu war a def mais teewul bu jëkkër gi gën a yées gën a yées ba nga xam ne wax ju rafet sax mënu koo am ci moom Jalika boo wàccee ci kër gi moo doom ji day bokk doom ji rek ndeysaan ndax fi ci kër ga. Eh, yaayu waa ji sax yaayi moom waa ji bañ na ko ba eh, du sax eh, duy toppatoo sax doomam ji nga xam ne sax doomam bu góor moo ko def ko bañ ba nga xam ne ba keroog bi laal la ñëwee indi doomam ñu ñëw kër Jalika xale yi di foo li mu wax xale bi loolu metti Jalika Jalika téye doomam mu nekko ko toogal dama toog fële xale bi di jooy mu ne ko ci ba jeex foofu moom xoloma jeex ku ku ku mu ku mu ku mu am itam képp ku lii da ku mel noonu lu mel noonu dal xam ne maam ji dafa gënale ñaari xale yi gënale leen sax yéen ñi xale yi sëy ak eh, seen ak doomam yi vraiment dafa metti dund boobu dafa metti boo xalaatulee mbaa nga concentré wu di nga def loo xam ne warloo ko def bu ëllëgee di nga rëccu mais ci fin bi fu muy laajtee divorce ba yaay gi yaay jëkkër gi ñëw toog li mu ko wax keroog li mu ko yàkkal yëpp kontaan na ci tarap ak fi yaay ji euh, ji di waxee jëkkër gi di waxee di nabb nabal mu yuuxu ko vraiment ju suis fier ba ci papi moom Jalika parce que lii yëpp moom papi Jalika moo ko ko yóbbee keroog bi ko waa ji siifee mu gàddi bagaasom daw dem dem kër yaayam papam ne ko doo fi fanaan jële sa bagage nga dellu sëy ba dang cay dee eh, dara jaru ko dara jaru ko boo ci naree dee kay ci sëy kay sëy sëy dagan na tas dagan na mais bu mu demee ba xam ne mënatul ba nga xam ne papam forcé na ko mu teelu décision bu mu jël man d'accord naa ci bien vrai que sëy jaamu yàlla la mais itam jaamu yàlla euh, yàlla itam dina gis ne lii attanoo ko mu may la xel boo xam ne ba nga siy génne ba nga siy génn ci nu mu teelee wala nga toog foofu ba waa ji rey la mbaa mu dóor la ba paralysé la mbaa mu dóor la ba yàq sa wala mu dóor la ba damm sa sa faar ngay mujjee dem hôpital di souffrir jaru ko jaru ko <laughs> franchement def na li mu mën amoon a benn jour boo xam ne itam dafa doon bëgg a dem jëkkër ah, gi da doon liggéeyi euh, mu ne ko moom yorul xaalis mu may ko mu jënd couche ak meew que euh, moom dina ko delloo mu yuuxu ko jànni ko ba waa ji dem benn xale bu jigéen jóge fële ne ko ana tonton diw mu ne ko mu ne ko lan la mu ne ko waaw moo ma daan fayal école moo may dimbale di ma toppatoo samay mbir te nga xam foofu nag jeexal jeexal na xol jeexal xol boo xam ne euh, mais Jalika nu mu fa réagir waxul xale bu jigéen bi dara waxul xale bi dafa daal di wëlbateeku tontu ko li mu koy tontu ba pare daal di wëlbateeku dem tu vois jigéen gu mën a muñ ci sëy la jigéen gu mën a muñ ci sëy ak ni muy heureusement yàlla may ko liggéey bu mu bu mu doon liggéeyee patron bi bëgg ko te mu def liggéeyam confortablement ni mu ko war a defee ba nga xam ne waa foofu ñëpp naw nañu ko boobu mu absenté sax euh, gis nañu nu mu mel lalla sax gaa ñu ngi ñu ngi ci même situation même bu fekkee ne sax moom ma lalla xam na ne jëkkëram day doxaan ba keroog bu mu demee di fiire xale bu ji euh, xale bu jigéen marem ak euh, faram ba après far ba ñëw mook jëkkër gi mook maram ñi mook mook cheikh ñii xeex ba ñu xotti yére yi mu laaj ko mu fenal ko ne ko dafa demoon jënd ji di euh, benn ñaari xale xale benn xale bi jigéen ak góor ñu doon xëy nga xam ne fen rek cheikh nag moom ko moom nu muy doxaane moom alalom bi la gën a pasar pasare ci biti mais teewul li mu war a def kër gi def na ko ba mu mot sëkk ba pare sax wutal jabarom biti bu bien muy jaay di daan dooleem tu vois mais di mais sëy jalika bi ya tax ñuy wax tu vois vraiment nu ñu dundoo nu mu dund jalika nu mu dundoo ah, vraiment kontaan naa trop même bu demee ba mu demee ba laaj bi lan moo ko war lan la ko lislaam sant ci biir bi nu mu mel euh, li si ilimaan bi ñaan ko ñaan euh, ilimaan bi ñaan ko ñaan mu ne ko daal fi mu ne daal dara mënul tax ma dellu ginnaaw li ma téye téye naa ko ba pare ak fi papa ji ñëwee di ko tëfal indil ko ndekki mu wax ko carrément ñetti dëgg yi mu wax naan ko euh, sama yaay li muy dund fi man xam naa ko man bugguma dundee lu mel ne noonu tu vois jalika jalika oh bi neex na ma trop rolom bi neex na ma mais boobu ba léegi nag amuñu nouveauté tu vois ok waaw merci merci merci beaucoup man maa ngi wootee États-Unis so dama ko daan seetaan ba sànq laa doon xool ci beneen côté bi ma gis euh, fii ndaw si di waxee histoire am mu mel ni comme bosu Jalika quoi et encore de plus Jalika Sagnal la sant man ma Saña ma sant Saña xaw ma nag bu ñu doon daje tey xam naa dina doon dinaa doon bàjjanam loolu moom lu ma leer la mais maa ngi lay gërëm ci sa émission bi kontaan naa ci trop moo tax na ma sànni ci sama kàddu kon euh, mbir mi moom neex na moom neex na neex na macha allah gis naa nag show Euh, film bi ñu bari yaa ngi koy critiquer comme quoi ne parce que borom jëkkër warul ndox warul ndoxaan loolu moom dëgg la dëgg la bu dul loonu kaawu jalika bi sax moom sax du moins c'est c'est supportable kaawu cheikh tax ñuy wax naka ngay bàyyi sa jëkkër di fen di dajale boo ñu koy woo ne ko sa doom a ngi hôpital mu fenal ko fen bu rëy ak bu mu invité euh, laal la ñuy lekk ci restaurant ci ci kaw ci seen kër ci kaw euh, marem marem woo ko mu ne ko sama mécanicien bi moo moo ma te fekk nag numéro marraine bi def ko def ci enregistré tour mécanicien bi te fekk loolu yëpp ay fen la vraiment man daal vraiment franchement dundu jabar gi itam dundu bu métti lay mais yab jabaru cheikh moom amul benn naqar ci seen parce que cheikh lu mu def ci biti bu ñëwee da koy fenal a fenal a fenal ba ndaw si gëm mais ba léegi ndaw si xaw na nànd mais amu ci dara lu ko wóor quoi amul ci dara yalika nag doxaan doxaanu jëkkëram mu def ci am dara lu ko leer parce que ndaw si def ko woon bu muy sangu mu jël téléphone bi ne allo waxanteek ak moom ndaw si raccroché mu ne ko yow yaay kan mu ne ko sama sama far la mu ne yow yaay kan mu ne ko man maay jabarom ndaw si raccroché tu ak bu mu demee mu yë mu ra mu jël numéro bi enregistré ko dem ba fu muy liggéey woon ndaw si ndaw si wax ko li mu ko wax quoi vraiment naqari na ci xool naqari na trop ok kon ñu def na jërë ngeen jëf waaye ci émission bi jërë ngeen jëf kontaan na ok bye. donc ginnaaw ba ngeen dégluwoon li nga xam ne moom la sunu yaay boobu wax ku ci am xalaat aussi mën nga ko def ci commentaire wala comme d'habitude nga envoyé ñu ko par message vocal di la wax ni yaay boobu ñun tamit kontaan nañ ci yow. di ñaan aussi yàlla guddal sa fan yokk xéwal gi dolli sutura si dolli mën-mën ji alors tey vidéo bii la ñu indiloon. di dellu di tuub encore une fois di jégalu képp koo xam te liñ fi wax laal na la ñu ngi tuub bu baax a baax di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah lépp lu fi jub rek ngeen xam ni ndimbalu borom bi la mais lu dënk ngeen xam ne ci man mii di wax la donc ñu ngi jégaluwaat encore une fois à très bientôt merci atul moom